ñaar ñaari attaquant lañu te kenn du daw ña ngay léewtoo ñoom ñaar di xoolante ci biir bët caatoo ngay mépp caatu yow defal naa ki ngay bëreel daa gaaw bëre ba daa rapide Nyari meriang nun, ngi noonu angnya caatu yoof ak ñaq jariñu ñaq jariñu ñaq jariñu moo leen won ginaaw mbokk yi caatu yoof a leen won kanam caatoo ngay dox di dem sa kawam ñaq ngay beure déplacement ndeysaan yo fu moytul tour massa tank bi ñak dafa gaaw beure ba daa gaaw dóor nako ña ngay rang ñoom ñaar munu ci ñak munu ci ñak ña ngay xeex ña ngi koy ngadd ay way way jëlal mo lolu jëlal tank ba lum ci nar la ma ngay rokk sa suuf caatu yof ak ñàkk jariñu du yombu yombu ardo am na gan laay laa xëy la ay way way way way yo fi yëngu nañ yo fi yëngu nañ ndaysan Ardo amnagan, na gan ñàkk dem na Ardo waaye ndana la li daanu ko Caatu Yoff waxoon na ko ma nga noonu daa pank pànk la Caatu Yoff ab pànk la ndaysan lolu amna solo joo ndaysan ñanga nonu ñanga nonu neena la ñak jarñu su bëgge soko ta dina lu ko metti il faut mu def ta tëf après saa waay retombe bu répondre mu door a wàcc suuf jël ko. moo tax am na lu ko. mais su bëggee yuuk forcé ko jàpp caat bu defee retrait bu ko remiser uppercut bi bu ko dalee mun naa yàq làmbam te loolu la jot jël. fi ngi noonu xeexkat boo ma jëlee da ngay taxaw xeex ak moom ci kaw door a wàcc bëre ak moom ci. saa gaawoo du jeexal làmb ji. mun na koo jeexal ndax ñax ni muy bëree bu ko bàyyil mun na delluwaat ardo bu ñëwaatee mun nañ ko disqualifier. ñax de kanam gi lay maye. kanam gi lay maye te kanam gi da koo war a sàmm ndax kuñ ko dooree li nga tal leneen lu bëre loo ci mënta dégg il faut mu dëggal boppam saa waay bu jugee mu daal di wàcc dem jàpp ko mais li muy bëre jeexalul lamb ji. loolu am na solo du mën a ñàkk. du mën a ñàkk mënu seen ñàkk El Hadj Ndiaga sama waa ji maa ngi lay bëggee ndaanan la ci lamb ji ndeysaan ñaxa ngi noonu ma nga ca ma nga ca ardo boobu léegi yàgg na fa ma nga fay bëgg a yàgg. làmmañ baa dagg wala wala wala tuñ waa dagg. wala wala wala wala bakkan batot ñaka ngay ñëwaat jo ñaka jariñu ñëwaat na ma nga nonu mom ñaka jariñu ñak ciatu yof arbitre suuf wa waan na mbokk yi ñàkk jëriñoo ak Caatu Yoff ña ngi bari def ay déplacement ñom ñaar ñàkk jëriñu sam-sam la jóge mbolo lo dekk mba mbaa caaroy mbolo lo ne ñàkk ci caaroy la ne Caatu yof la yof la jóge ndaysan ñang nonu noonu bàcc ku lamb ji demé rek mu jéxé sax ci xéx ndaysan ñanga nonu ñom ñaar ay mbeur lañu toll nañu ñu am nañu doole tam nañu bëré ñom ñaar ma ngay dox sa kawam na ngay xeex ñom ñaar na ngay xeex ñom ñaar ay waa Caatu Yoof Caatu ngay dur dan nako dan nako la ilaha illallah ilaaha jëm ak mom ay way puting jëm ak mom puting ki moy puting ci lamb ji ndaysan caat yoo fay ay waay waay yërëmal gaañi caat yërëmal gaañi ndega sama waa ji waxoon na ko ndega sama waaji ji waxoon na ko ndeysaan caat yoo fi yërëmal gaañi caat yoo fi yërëmal gaañi bilaay yaa mën a xeex ndeysaan caat yoo fa noonu ay waay waay waay waay jëla ma mbooloo ba jëla ma mbooloo ba ay waay daw na yaram waay ñax jariñu waay